mbokki àll Cheikh Rafal ñu ngi leen di seere baax ngi ñu mboolem ko bokk ci daal àll Cheikh Rafal te jiital nuyoo bi sëñ Muntaxa Mbakke mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu suñu Tuubaa gépp di ki teg di ñu teg suñu Cheikh Fall jëmbu mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu Cheikh Rafal gépp di siyaare àll Cheikh Rafal gépp di jël sama nuyoo ak sama siyaar di ko teg ci loxol soxna Jaari ba ci Cheikh Fall ti génn mu ci mboolem ko nekk di nuyu waa réew mi Baye Mody Kébé sax ci njub ak mboolem ñu nekk fi ci Sénégal waa bitim réew si Mor Ndiaye ak mboolem ku nekk bitim réew ma may nuyu bu baax euh, porte-parole de Aliou Seye Fall suñu Korea naa ne ak soree ma tax waaye kaddu gi ma la waroon euh, kaddu gi nag kii di wax ak yéen si Omar Seck euh, Nourou Day ni général moom si sa jëmb mel ne fii ci àjjuma ak tey jii ñu toogaat ay xéwal yi jëm ki si sa jëmb. mu mel na ne ba liggéey boobu moo xam tegoon na ko ci daal Aliou Serre muy këram googu ñu doon yeesal ci miir ba ak mbaar ma ñu ñu newoon ca ba tey nag yàlla dogal ñu sëkk mbaar ma war ko lay ba mu set ci sëkk ko tey jii nag mu digaloon ñu toggaat xéwal ya moo waral tey jii ñu nekkaat fi togg xéwal yi tollaat ci fukki mën ak juróom lépp nag di tawféexam ak dooleem ñu sant Serre Fall bu baax a baax a baax wax na liggéey bi nag. toll nañ ci finition daanaka ñu ngi ciy woowaat ñëpp rek ndax liggéey la boo xam ne li may wax saa su ne sëñ bee ko diglee di ko def te sëñ bi lu mu digal njariñ la te sëñ bi dara taxul dara boppam taxul suñuy suñuy muy defalu dara bëgg ñoo dimbali képp tax muy deflu kon nañ jàppaat liggéey sëñ bu baax te xam ne ñaq jëriñu bëggut am seerafaal nee na yitte moo yetti buntu te ku ñaan ñàkk soo jëndee am kon nañ seerafaal ne daan wax ne luy jaay ci yàlla rus naa koo ñaan kon sëriñ baa ngi fi bëgg nañoo dimbali li muy def loolu nañ ko nañ ci daw jëm jaayanteeg moom liggéey ko liggéey bu rëy ba tax nag mbaar moomu kon tey ci àjjuma ji murid yaa nga ca di ko lay fas yéene koo sëkk bu dibéeree dañ ko war a ubbeeg bisu xasida bis bu mag ndax ku xam Cheikh Fall xam xasida te suñ sa jëmm ñëpp xam nañ ne mooy Cheikh xam nañ ne mooy Cheikh kon nañ nañ nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax euh, la bëgg sëñ bi nag ñu ngi ciy woo ñëpp dibéer euh, di woo ak axlu xasida gépp ak waa daal alxuraan yëpp ñu yenn faa jàng xasida ak alxuraan tudd yàlla ba ngoon mu yi ñëpp daa dellu sa kër ya loolu nag ñu ngi ciy woo kii xam te ne nii ku tudd xasida fii ci Tuubaa ak ci réew mi ak bitim réew fu ma doon sa xel dana ci dem muy sëñ Xamsatu Mbàkke ñu ngi ko ciy woo jokkoon nañoo sëñ Seex euh, ñu ngi ko ciy woo ci bis boobu ak së ak njabootu xasida gépp ñu ngi leen di woo ci bis boobu ak jàngkat yëpp suñu Ilimaan Touré Ibrahima Gueye suñu Abdou Lahad Touré gaa yëpp bëgguma lim duma ma tax suñu Abdou Diakhane maa ngi lay ci woo ndax yow yaa ngi Aliou ngeen kon jërëjëf suñu Mame Mbaye Badiane Mame Mbaye waxet bis boobu it maa ngi la koy yëgal bu baax ngay ko mbokk mi yëpp maa ngi xasida yi Baye Moussa Thiam Baye Moustapha Diang Maraxib Baye Nis Mbaye Nourou Darini Baye Moustapha Diop Maraxib ak lu xasida gépp ñu ngi leen di woo ci bisu suñu Cheikh Fall jëmb boobu kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñaal tawféex di wax daal tajaal ñi ngi wax ci añ yi nii war a yóbbul sëriñ bi euh, ci liggéeyam boobu ca këram ga te dibéer it noonu nga fas yéene def ndax la xewtoog bernde yeeg yëpp ci fii ci daar ji lay jógewaat kon jàng xës ñi jàng xës dañu leen di woo fas yéene leen a berneel bépp xeetu berne boo xamante ne nii nit dañ ko berne woo fas yéene fa yóbbul Cheikh Rafal kon jërë ngeen jëf wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh la ilaha illa allah faal la ilaha illa allah faal waaw nuyoo bi nag ñu ngi ciy jiital Serigne Cheikh Jëmm ak suñu jëwrin Seydina Omar général généralu daayira bi ñu ngi leen di siyaare waat bu baax a baax di nuyu mbokk taalibe yi ñëpp nag waaw niñ ko waxee daal comme niñ leen koy waxee daal saa su nekk rek waaw ci jamono bii ñu ngi nii di waajal xéewal yi nga xam ne moo jëm ci liggéeyu Serigne seex Jëmmu Fall bi waaw di ci nuyu góor yàlla yëpp nag waaw di leen siyaare di leen joxaat seen wàccuwaay bu baax a baax waaw di ñaan tamit góor yàlla yi kenn ku ci nekk gën a jekku ndigalul sëriñ bi ba saa su nekk li nga xam ne moo jëm ci kër sëriñ bi ñu koy gën a man waaw di ci gën di dooleel ndigal lu jóg jëm ci kër sëriñ kër kër maam Cheikh Ibrahima Fall waaw ñu wane ci sunu bopp ba ku nekk xam ne alalu maam Cheikh Ibrahima Fall wone na boppam ci ndigal lii nga xam ne moo jëm ci kër Serigne Cheikh Jëmu Fall ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax nag te di leen siyaarewaat wasalaam illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah fa muhammadu rasulullah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 الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله Fall الله kon jotaay ji ñu xam ne sëñ Cheikh mii mooy jëwriñu jotaay bi bu ñaan jotee it ngeen tàll seen loxo mu ñaanal leen. kon nag sëriñ bi nee na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf na ku jëfa ko moom ku jëful bokku ci sëriñ bi xam na li ngeen yendoo bu baax gannaaw bi ngeen xamee bëggam mu digle lim digle ci kër gi boobu tey ji bàyyiwu leen muy góor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi ñi dëkk ci biir kër gi ak ñi dëkk ci koñ bi ak mboole mur yi nga xamee ne ñoo ngi bàyyi koo Touba ak lu ko wër ba ci ndakaaru Seydina Omar Seck ñoo ngi lay siyaar bu baax di la jaajëfal bu baax a baax ndax bu dee ci saayir ba leen sëñ bi yeewee ci àjjuma ji ngeen noppee ci mbaar mi la leen sëñ bi yeewi waaye bàyyiwu leen nag benn yoon boobee defaroon ngeen ay añ ak lim ci war a àndal lépp ngeen àndil ko sëriñ bi kon xam ngeen ni yéen saa yu sëñ bi wooteeb liggéey lépp lu jëm ci jumtukaay yi murid yi soxla yéen ko def ba ci tey jii nag yu ngeen wuti ak it xéewal bi ngeen defal donge yëpp waaye ndokk ba yàlla dul jaawale jëf yi baat bi ngeen wax alalu Cheikh Ibra Fall nag jamono ju ne yéen a koy gën a firndeel yéen ngi ci nekk waaye ndokk ba yàlla dul jaawale jëf yi jaa ngeen jëf jaa ngeen jëfati ñi dellu soññeeti rek ñu gën a góorgóorlu gën a feddliwaat suñuy laxasaay bu baax di jaajëfal sëñ Xaadim Njaay bu baax mu sëñ Basiiru Njaay Baye ak mbooleem daayira bi ma àndal jóge Touba ñëw gannaaw bi mu jotee ci sëñ bëgg sañ magay mii mu jot ni xam ne am na équipe bu ñu soxla ci wàllu raax bi sëriñ bi bi mu ko soxlaa tey ca suba sa lañ xëy si ñoom booba tey ñoo ngi ci bëggub sëriñ bi sëriñ bi nee na jàngeen jëf ndokk ba yàlla dul jaawale jëf yi ñi nga xamee ne ay soxna lañu it gannaaw bi ñu xamee ni li ci ëpp ci buub ak lay jigéen yee ko man muy mag ñi muy ndaw ñi ñëpp ñëw nañu góor ñaale it ne ci seen biir njabootu Baye Ibrahima ñu ngi bi sëriñ baa leen di sant bu baax moo ngi leen di gërëm bu baax na ngeen rafetum njort te dalal seeni xel bu baax ndax xam ne ni kenn dong mooy fay muy sëriñ bi te sëriñ bi dana leen fay ba ngeen doyel ndax wér gi leen sëriñ bi jox doole ji leen sëriñ bi jox iñaanewu leen ko sëriñ bi ndax sëriñ bi mën naa wootab liggéey duñu leen fi séen datu te it sëriñ bi am nañu ko mën a liggéeyal di leen ko liggéeyal sëriñ bi fay leen waaye xam ngeen ni kat li ngeen bëgg ci loxoy sëriñ bi la ne te xam ngeen ni sëriñ bi li muy santaane it yéen a ko war a defal ndokk bi ngeen ñëwee ak seen doole ak seen wërsëg ak seen lépp ba fexe ba bëggub sëriñ bi saafarawu kon na ngeen xam ne seen bëgg dana saafarawu na ngeen waat seen i laxasaay bu baax xam ne wàcc amagut da mbooloo mu toll nii buñ fi teewee foofu rek sëñ bi jaajëfal leen bu baax a baax sëñ Baye jëwriñ jëf jërë ngeen jëf sëñ Cheikh it ñoo ngi lay sant bu baax a baax ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax boobu tey jii yéen a ngi toog fii pënd bi di leen fi fekkit ngeen di soññee di jaajëfal bu baax ndokk ba yàlla dul jaawale la yi benn jëf du jaawal ak morom ja ngeen tàllal seen loxo sëñ bi ñaanal leen jaa ngeen jëf jaa ngeen jëfati tàllal leen seen loxo sëñ bi ñaanal leen amin yaa rabbal jaajëf Fall Ndiaga bisimilah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh mbokk jullit mbokk taalibe yi ah, soxna ah, Diagne Cissé Diallibatul Maraqib soxna Bourid Mamoun Cheikh ah, di technicien waaye secrétaire général daara alal euh, Maam Cheikh Ibrahima Fall euh, murid bu mag ba daara sëriñ Sëriñ Jëmm Fall moo leen di baax baax di leen euh, ziar waaye gi dëj ñoom ak ziar bi sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides sëriñ Sëriñ jiital ci néew bi ak bi jëru daara gi Seydina Omar Seck nuuru daara ni général murid bu mag ba Maam Cheikh Ibrahima Fall nangu ndigal waaye jàmbaar sëriñ Cheikh Fall jëmb ak mboolem ñi nga xamante ñoom lañu àndal liggéey bi waa daara Al Louch Ibrahima Fall yëpp rek yi nekk ci réew maa nekk ci biti réew ñu ngi leen nuyu bu baax ah, di leen a ziar waaye di leen jaaj jaajëfal ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne ah, jamono junne sa sune ñu ngi koy taxaw ci liggéeyu ah, Serigne Cheikh fal jëmb fi ci Palen Mbacké Bawal ñaari bay Fall tey nag nekkoon bisub raax bâtiment soxna yi waaye bisub yeesal li nga xam ne set seetal li nga xam moom mooy mbaar mi sëkk ko Euh, bu ñu noppee lay ko muy lu am solo euh, macha allah bëgg nañ lool ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp waaye di jaajëfal bu baax jëwriñu daara ji di alalu euh, Sidi Ibrahim Fall suñu waajal murid bu mag ba ci taxawaay bu rafet bi ndax kenn ku ne xam na ne ajuma bi jàll ci lañ doon kule li nga xam moom mooy bâtiment soxna yi te teewul ndeysaan dafa wax waa daara gi li nga xam ne moom mooy bernde yi ndax loolu lépp ci ndigalul sëriñ bi la moom sëriñ Seex Fall jëmb waaye lépp rek ci ndibalum la kon nag ñu ngi ko ñaam yàgg fi lool ci ànd ak wér waaye ngi takkaat laxasaay bu baax a baax rek xam ne ba léegi eh, dinañ ko àndaat ak yéen ah, dimanche bi ñu jëm incha allahu rabbi fi ci biir kër Serigne Cheikh Fall eh, jëmb xalif général de Baye ah, bi nga xam ne ñu ngi ko fi amal ngir ubbee ko li nga xam ne moom mooy ah, mbaar mi ndax kenn ku ne xam na ne koor gi eh, egsi na ba noppi moo tax nag ñu fas yéene koo waajal bu baax a baax kon ñu ngi soñu ñëpp rek ci ñi teew dimanche incha allahu rabbi na ñëpp teel a ñëw waaye sañ sa ba rafet euh, indaale alxuraan jeeg xasida yi fas yéene euh, durus waaye fas yéene euh, bernde yendoo ko suba ba ngoon jot ci kàttanu yàlla suñu borom subhanahu wa taala lépp rek ngir sant sante ko ki nga xam ne moom mooy borom daara gi Serigne Cheikh Fall jëmb nekk fi ci biir kër gi moo ñu dimbali boppam li mu waxoon nañu dinaa leen dimbali ba àdduna sépp xam ne dimbali naa leen ndimbal googu nag moo waral waa daara gi tamit fas yéene ko delluwaat njukkal moom Serigne bi daal ko ñaan mu yàgg fi lool ci ànd ak kon ñu woon ñëpp ñëpp rek incha allahu rabbi euh, fu waay mën a nekk ci réew mi wala ci biti réew rek nga teew a ci Palen euh, Mbacké Bawal euh, ñaari Baye Fall kër xalif général de Baye Fall borom daara ji di alalu Sidi Ibrahim Fall sunu waaja murid bu mag ba waaye ñëpp rek ñëpp rek mboolem ñi nga xam ne ay dëkkandoo lañ wóolëre yi xarit yi ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal ci seen taxawaay bu rafet macha allah bëgg nañ la rawatina nag suñu mbokk yi nga xam ne waa Assalaamy TV TV saa su ne ñu ànd ak liggéeyub Sidi Ibrahim Fall sunu waaja murit bu mag ba ñu ngi leen di jaajëfal uh, bu baax a baax ñoom it di leen ñaanal fan bu gudd wér gi yaram euh, waaye xéwal yu bari lool ngërëmal borom Touba ci dooley Dialibatoul euh, euh, Marakhib ba léegi nag liggéey bi des na kenn ku ne xam na ne koor gi léeg mu ñëw moo waral ñi daal di fas yéene rek daal di def bisub xasida bi daal ko defee waagal mën a koor gi lépp nag ci sëriñ bi bu ko defee bu ñu wooree ba noppi dësiwaat ci mbaar mi finition yi nga xam ne war nañ ko cee defaat lépp ñi daal di koy eggale ak li nga xam moom mooy liggéey bi nga xam ne des na ci kër gi te lépp waa alal di Cheikh Ibrahima sasoo woon ko jaayante woon ko ak sëriñ bi fas yéene nañ ko eggale incha allah rabbi ginnaaw korité bi kon ku lu koo xam ne rek am nga pas-pas ak yéene tàbbal ci sa addiya mën nga koo yónnee ba léegi ci numéro orange money yi wala numéro wéef yi lu ci mel ne 78 534 89 11 78 534 89 11 orange money la waaye wéef la ci turu Omar Seck wala ba tey ci turu Diagne Cissé ci 77 649 95 88 77 649 95 88 moom tamit Orange Money la waaye Wave la ci turu euh, Diagne sise kon euh, ba léegi rek. liggéey bi dafay wéyal ñiy laaj adje yi kon ku lu koo xam ne yaa ngi teewlu Assalaamy TV ak foo ko mën di teewlu ci réew wala ci biti réew rek ñi ngi leen di soññ bu baax a baax ñu joxe seen adje ci numéro yooyu wéyal liggéey sëriñ bi te xam ne ah, lu waay ah, def rek ah, sa bopp kenn ko ne loo def rek yow yaa ko moom rawatina nag liggéey Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñu yaakaar tey ëllëg muy mbaaram ndogu yi nga xam ne ci lay toggalee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñu yaakaar tey ëllëg ñaari jëmm kenn ndogoom yu tedd sel yooyu ñu fas yéene nag doon yeesal mbaar moomu doon ko layte ji waaye doon ko sëkk suufus njaareem kenn ku ne xam ne bone ne e, Touba njaareem ne Mbacke Bawal e, waaye paleen ñaari bay fall lépp rek nag di ki ci biir moo ñu dimbalil boppam kon e, ñu koy sant bu moom Serigne Cheikh Fall jëm waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanamam ñoom ñëpp rek ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax ku ci mel ne Serigne Magay Ñang Baye Fall Serigne Omar Doumbouya euh, Baye Cheikh Mbaye ñëpp Baye Jibi Diagne euh, Baye Mbaye euh, nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi wax dëgg yàlla suñu yaay soxna um, Oumy Fall waaye suñu yaay soxna Mbaye si la Baye Fall Serigne Cheikh Fall jëm bu ko defee buñ ko tegee seen loxoor ñoom ñaañoo rek dañu ko mën a jàllaleel mboolem mbokki taalibe ne ñoom lañ nekkal ci biir kër gi waaye waaye ak waa café gi ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di bu baax a baax ci seen taxawaay bu rafet jamono junne saa waaye waa kër général ci taxawaay beeg am solo yi nga xam ne euh, fan yëpp seen kër lañ ko doon toggee te wax dëgg yàlla dara ñaaw ci lépp rafet waaye lépp ànd naag mbégte ñu ngi di sant bu baax di leen gërëm waaye kull koo xam ne rek seen numéro mi daaloolu Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba daara si jëmbu Fall daf yàgg loolu di ñaanal ñoom ñëpp rek sahaadatan wa barakatan wa xaafiyatan

lépp rek ngir jox leen ay xibaar yu wér te wóor ñoo ngi ci réseaux sociaux yëpp moo xam Facebook la Instagram ba ci Twitter fu ngeen ci dem rek daa ngeen fa fekk xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di jox muy bàyyeekoo ci assalaami ak Assalaamy TV jox leen ay xibaar yu wér te wóor rek mooy suñu yitte.